قادني من إله الفن nekk xam na ne liggéeyam mu ngi ko ëppale mi ngi ko ëppale woon ci biir diine ji ak lépp lu soññ nit ci diina lislaam waaye itam noonu la doon sàmmee di taxawu mboolem ñi nga xam ne ñooy dund ci biir yoonu morit te fas yéene aw ci yoon wi nga xam ne moo gënal sëriñ Touba loolu nag mooy li nga xam ne moo doonoon jubluwaayam musula am benn soxla ci àdduna lu dul jullit nekk jullit bu sell bu yàlla gërëm jullit boo xam ne aw na ci yoon wa nga xam ne moo gënal suñu borom tabaaraka wa taala euh, taxawaayam itam ci yoonu murit moy murit yeb xamne serigne Touba moy ki nga xamne mo xal yoon wi ta am ño xamne bëgg na ñepp ku and ak mom nga ñew jaar ci yoon woowu mu nekk te fasiyene roy ci ay jikom ndax yoonu murit serigne Touba dafa wax ne ñi nga xamne ño aji ci mom ñepp nañu xamne ni ñi ajo ci mom lu mata leral la ndax ku jog ne serigne bila andal wala ci mom la aju ba pibegajar bëgg yon jaar ci wenen yoon loolu kon serigne bi warna naa leeral loola moo taxoon mu wax ne ya mutaalliquna kunu muminin wa muslimina taatan wa muhsinin kep ko xamne ki dal yaangi aju ci man na nga xamne da nga wara nek ku gëm yalla nek julit bu wor te te di ko diko rafetal neena koku moy ki nga xamne mo aju ci man nak nak le seigneur Abdou haddan di ko dund ci kanam ñëpp moo taxoon euh, euh, képp ku xam ne diine lislaam moom ci dëgg rekk lay tege moo taxoon moom mbiram mépp tege ci ak dëgg di ko wax di ko jëfe di ko jàngal nit ñi ba soppi na lu bari ci jikkoy doomu aadama yi ba fii mu nekk nii saa yu réew mi yëngoo walla ñu jaaxle faw ñu dellu ci ay kàddoom door a mën a gindikuwaat kon nag loolu la lëggéeyal yàlla ak tege ci dëgg lépp mu tegoon ko ci alxuraan ak sunna loolu moo waral kenn du ko fàtte bu mukk waxtu wu nekk it ay jëfam dafay des nit ñi di ci jàng di ci roy te loolu rek la ko bëggee woon kon moom ab liggéeyam naax saayul wenn waxtu damay faral di wax ne yóbbu woon na yoonu murit foo xam ne bu ñu ci warut woon mën a yokk dara it warees na ko mën a bàyyi fa mu ko bàyyi woon ndax taxoon na ba ñi ñu séqal àdduna ak ñëpp xam doole yoonu murit xam seen man-man xam seen kàttan ak seen taxawaay loolu lepp ñu joxon leen ci cër loolu nak la ko waraloon xam gum xam yoon wi fi mu tollu kon euh, serigne Modou Mbacke mi nga xam ne domam di taxawé bis bi ci kërëm ñu ñëw fi and ko mom diko siara diko ñaanal serigne borom tabaaraku taala mu yag ko taxawé ta and ko ak talibé yi yëpp te lepp lu mu ci jëf depo ngërëmul way wa Cheikh abdul Ahad Mbacke ñi ngi feddali suñu bokk ci mom di feddali suñu koléré di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a àggale jëmmam ak taxawaayam ci yoon wi ànd kook taalibe yi yàlla na ko suñu borom mottali ci loolu bi xurmati xaadim rasul ñu teewe ko ay déwéni demen wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.